boas, bi. bëgg sa réew ak gëm sa réew mënul geste bi nga xamante ni Sadio Mané def na ko jël cinquante supporters sénégalais daggal leen bio avion pour ñu demoon seetaani ji demi-finale bi mu nekk geste bu nice te tey su ko neexoon mënoon naa wax ni man jour rek laa mais xam na ni dafa porter drapo Sénégal te fulla ak jom saa su ne la gis si moom ci li muy wane. beneen bi si topp damay gis euh, ci kan bi euh, jour yi bu ñuy romb. Euh, Mame Balla moo ko dugaloon su ma juumul ma gis ko ci euh, Instagram Mame Balla jour yi ku romb boo leen woowee ñu tàllal loxo xam nga xaw a sóob noonu jàll mais Sadio sa waay ni ko Sadio rek mu jàdd ñëw même bu dul Mame sax dama koy gis si yeneen euh, vidéo yoo xam ne daf koy def te loolu mënul weesu woyof ak maase ba tollook nit ñi te defe naa ni nit ñi ñoom dofuñu su fekkoon ne am na neneen nu mu mel rek gars yi naan lii ak laa lee ak laa mais Sadio moom bu dee ci terrain wax dëgg fa yàlla jom lay wane tamit xam ni numéro 10 boo ko solee ci terrain naka nga war a mën a servir ce te wan nañu ko ci demi finale bi wax dëgg fa yàlla Sénégal yi kontaan nañu ci demi finale bi trop trop trop te yow rawatina Sadio Mané yaa ñu gën a bégal gaynde di la ñaax final bi bu dara yomb quoi ak yeneen gaynde yi ñu xam ni ndam li dafa war a ñëw Sénégal ci kàttanu suñu boroom bu dee jig nañu tey wax tamit ne ñëpp ñaan te ñi nga xamante ni saa su ne saa su ne laax de lu am ñu génn def vidéo te gis ngeen yàlla moom lu mu programme kenn mënu ci dara Serigne si doon wax naan duñ dem demi final ak ak ñi doon xalaat xalaat yi ñaaw ak tey jii nii suñu borom. wan na leen boppam lépp nañ ko delloo si yàlla ñaan suñu borom coupe bi ñëw Sénégal te am nañ ci yaakaar mu nekk lu ñu jig. way Jamil man la Karim Xurum Xaax quoi damay ñaan ngir yàlla war a suuru laay fekkee message mën nga ko jotale Macky Sall nga wax ko ko bu mu dem ci final bi bu mu seetaani final bi quoi na toog fii rek Sénégal nañu dimbali ngir yàlla rek dañ ko ñaan ngir yàlla war a suuru laay ko ñaan dara dara dara lii moom dañ ko ko ñaan quoi nañu dimbali rek. bu bëggee sax ñu raamal ko bu mu seetaani final bi na toog Sénégal nañu dimbali rek nañu dimbali rek Ibou Ndafa bu mu dem. Karim xurum xaq ñun taluñu ay yaa ñuy um ak bul dem seetaaneeg Macky Sall toogal ak Macky bul def lii yooyu taluñu ko te loolu yow du sa wareef quoi Macky Sall président la sama président la ak nu mu mënti mel mënoo ko dindi moom day dem seetaani ji. yóbbaale première dame gouvernement am ak yéen opposition bi yëpp ngeen dem supare ji sunu gaynde ñun loolu lañ soxla mais pas ay nekk fii nii naan ay Macky bu demee nangam ak nangam di am ay xalaat yu ñaaw waa léegi su Macky demee ñu gañe nag looy wax wala su demee gañe wuñu après nga génn ni waa lii ak nangam ak nangam lépp Sénégal la faal moment politique boo jotee acca na gaa yi politique waaw opposition pouvoir mais lii fair play la ñii dem représente ci seen réew amul président amul opposition na ñepp ñaan ndam li ñew mo gën faal sa vidéo bi nga def amul benn sens benn sens faal lu ñor nga wax lu ñorul nga wax ñun wuñu ko yow mi sax bo saagonul sax sa wax jiri sax mën nañoo um waaw comme ko yow tu tu penses que ne yow président su démé mom mo moy lool yow da fék nga gën rek naan ay président nangam ak nangam rek moy lool faal nañ yënënte jamm ta boy wax nga wax jamm ñun lool lañu bëgg bëgguñu leneen instant bi taluñu xiiroo taluñu ngaayo nañ yënënte jamm ndam li ñëw Sénégal loolu kese lañ soxla gars yi